grand prix cheikh ahmadu bamba xaadimu rasul ci jaayante lañ liggéeya liggéey bu rëy bile ci liggéey bu rëy bile bu ayyaamu baddirin dekki waatoon fi tey jile du ngeen sikk sàkka teeti njàmbaaru gaayile ku jot tey ci julleek sëlmal wara kay aji ña jaayante seenug dunda tax tey nu tallile fa ridwaanu rabbil arshi lañ leen di ndokkale saxaabatu xayril xalqi yaa xàll ngir mi li ña leen jàppe ay royte fa def jëf ju réy jile bi amwaalihim jàmbaari siñ bamba yaa ngi le ku teg ñetti nitti junni tey doora tàmbali ba woolaani jaar imraani fas yéene mottali juróom benn fukki junni fi kulli suuratin bu kaamil ba daanoo tey de jaaraama gaayile bu ñuy xatmu kaamilub tabak talli tàllalal saxoo nag di wax amiina gën toog di jëllale le coordinateur Serigne Djily Abdou Qadir Niang Serigne Abdou Qadir jël na faatiha jëfi saabiquuna saabiquun moo ko tegtale gannaaw umma quraanin mu toftal ca baqara Serigne Djily jàmbaar yooya seen mbir nga fàttale sëriñ siidi ñang ba jàmbaari alquraani cheikh bamba yey sasu sëriñ siidi xaaroo sas wu des ñanga yeggale la jannaatu adnin am ca biir saaru maryama nga am yow ca biir kaamil ba màggal nga saar wile sëriñ maxtaar jenn jukki kaamil yi tab yaa ngi waa ñenn ñoo ca raw sëriñ siidi maxtaar jenn yaa def lu rëy lile saba moo ko jaayanteel ñëwaat teg ca faatiri ndegam jukki nan yaasiinu soofaat la yeggalee musarsaad ñu naan day bàyyi muy daw ba xaafiri fabaat suuratu tafsili naan leen ma yeggale ñu koy yéem xeeb koy yootu suuray ki zuxrufi ba jot jaafi yaag laxqaafi teg leen ca limbile cheikh ahmadu kara mbàkke jukkib kan mu sottee ëpp jukkib ku wàccegul na neexee ko lay tibbee fu soob ko fa lay dale sëriñ moodu mbooti saaru nuun yàlla bum la raw nga toftal ca barkeb xàqatoog saala ak yële nga jot mbooti saaru jinni ak yooy mu zammili te booleeg mu daffir làq seen barke waajile qiyaamati ak linsaani ak saaru mursalaat amaak naaziyaateeg saaru laxmee nga toftale bawoo nuun ba jot leen romb leen teg ca takwiir bawoo mbakke saaru linfitaar yaa ko yeggale sëriñ moo du yàggal mbàkke say mbir di jëm ca kaw jëfi tabbu tiitul ñàkk yow yaa ko tegtale limub ñaar fukkiy saar ak juróom ñett tuutiwul juróom benn fukki junni ciw saar nga leen jële limub xarfi tuubaa mbàkke siñ moo du yaa tebe nga wàcc nga weccee trois mille ci saar yang ko séddale la dooree ca saaru nuun ba dem suuratul alaq lu dul saaru nuuxin jël nga saar yépp yeggale limoon naa ba tolloon man ca saaru mutaffifin jëmoon iqra daa yombul ndekoon naa ko yeggale la fay barke ak xéewal ak i may de bum la raw di ñaan yàlla sas say soxla saar yi nga mottali a cheikh xabibullahi mbakke fadal sëriñ cheikh xabibullahi moom cheikhi fadilu sa yittee di alquraan te dëggal nga wax jile ku may weddi mbaa ngay sikk laajal ma maa ida tabak talli gam saar wee ko umpale ku bañ kenn mat ko seede bay weddi lii ma wax ida jaa nasrullahi ñaareel na saar wile juróom benn fukki junni ngir saaru maida juróom benn fukki junni ngir nasri saar wile na buur yàlla fay sak farlu nangul la jëf jile sa yéeneet ci alquraan de yàlla nang ko yeggale sëriñ abdul gafuur mbakke ka jaayante saaru xashri mooy seex abdul gafuur tabuk mbàkke wax kook bàyyi ñooyam gisal lile ku say maam defoo ni waame ngay tab demooy la war sëriñ du yàqoo lenn baax baaxi maam yële guddal fanta am ak wér te yàgga def lile te dëppoo ci ak mbégtem sëriñ bii waral lile sëriñ jiili mbàkke sëriñ jiili sab cër mbakke tuutul te xam nga ko ku réeréeti ak jaayantekaay laaj ko tab gile ka xijri booleeg nax li tëb jàlli zaariyaat te seere ko saaru tuuri waajoo lu rëy lile juróom benn fukki junni ngay jàppe saar wu ne guddal fan amal weer mbàkke buur fay la jëf jile sëriñ mustapha jaxate xaadimul xadim murit baa ngi jàmbaar jàngi mooy xaadimul xadim sëriñ mustapha jàmbaari sëñ bamba jàngile lu jàmbaar walla jaayante doon yoon wa tax di am du looy ñàkk mbaa ngay néewle xoolal ci saar wile ku tippoo Muhammad njëkk ñey kursu yaa ca raw Sëriñ Mustapha yaa xellu yaa yewwu waa jile association soppey alquran na leen yàlla ubbil wunti xéewal yu yaata doy ci xar baaxi saaru fatxi ak mbooti saar wile bu mbootaayu alquran ya benn yéena fes ci liggéey bu rëy bi yàlla na leen yàlla jàppale Sëriñ Sayid Ñang tabuk siñ Sayid Ñang boo ko réeree de laaj ma ko ka jaayante saaru mi moo tàlli waajile na yeggee ci ak jubloom jotam lépp lu mbébét ci barkeek ngënee liy mi ak mbooti saar wile sëriñ manjaay géy ka jël xojaraatiy nëbb aw turam manjaay feeñ ca rekk géy njoor a gunge ko saar dangay feeñ biir jàmbaar ya kuy tudd tudd la di ñaan rekk nga gën koo man buur nangu jëf jile sëriñ sàmba jaw sëriñ sàmba jaw jaayante nag saaru jumaa lu ñuy wut ci saaru jumaa yàlla nag ca ëppale sëriñ maam cheikh mbakke ku yokkul ni maam cheikh mbakke sag wàññi ngay fësal sëti mbakke yi seen tab gi yemmal na mbir mi le ku yokkul ni maam cheikh mbakke sag ngay fësal sëti mbakke yi seen tab gi yembal mbir mi le ka jullit ya mooy saaru muuminuun ku jaayante woon ak saar wa doo ñàkku lay fale ajaa jëf sëriñ maam cheikh sëtub mbàkke biñ sagoo sa jëf rëy na foo naaleeti yàlla nang fa yeggale sëriñ xaadim ñang ko jam xeeju ixlaasam ba naa fiqi ya ni ñee fekke woon badrin de laaj leen ma gor sëriñ xaadim moo ñang baalo saaru munaafiquun bu seedee ña di naafiq la jëf jile nde yow yaa ko teggil aas tegal koog taxaabu ni talaa xedde yaatee dog pasem gaa ya cay jële xaramal nanu ñàkk ak nay ak lépp luy ayib ci jëf ji nga def taxriimi yaa aay ci waabale tawakkal te xalsas naa doy ak yow nde ko wax wayarzuqhu min xaysoom ja loo naal na yeggale birig ak trois cent mille la jël boole saariile sëriñ xaadi moo ñang baalo njàmbaar nga tegtale sëriñ muusa mbay la muusaay niroog yaasiinu ci tànn ngay saxal ba tax yow sëriñ Moussa nga ñëw tànn saar te yàlla nañ la joor may yépp ngay jël di seddale Cham et frère lekk les door ku leen ràngali médaille yi or mbaa wurus ngeen yay ca ndax jëf ju réy jile ndegam booti saaru waaqi ak may ya di wër na leen yàlla far jox lépp ngeen mucc ci tële sasoo ngeen ko bay ngeen sas wa jaayante ngeen bu wér lu caam e frère yoo ci nal na yeggale sëriñ Bachiru Mbakke na yul yafusul laxza bi moo seede wax jile tabuk maam jëlay tibbeende moo tebbi saar wile bu doon barke ya xéewal ya dañ doon ko seddale ku jël suuratul ahzaabi yaay mujj a ëppale julleeg selmali yàlla ak malaakaam ya foofale sëriñ bas jëloow des mbakke yaa tànn yiw wile butik sant yàllay seedelee suuratul xamar nijaayante nañ yónnee ko saaru xadiid male na leen ñaari saar yi seede fii seede leen fale nde ëllëg bu ñéppi jàq ñoo leen di jàllale sëriñ moodu ñaŋ sëriñ moodu ñaŋ moom soxna mbeen mbakke kenn rawul te lii suuratul ixlaas a koy seede tey jile sa jëf rëy na sellal gaa ko taaral na yàlla fay te tëbbal la ay xéewal ba ngay yàgga def lile sëriñ bajaan ka xam yoonu jaayantee la raw ndax du naw jëfam nde day def lu rëy tuutal ko xoolal ma waajile sa jëf jeeka rëy jaayante yombul sëriñ bajaan mbégum saaru luqumaan tax na loo naa li yeggale juróom benn fukki junni yal nanga ko yàgga man te koy def ci alquraan wéyal raw nga maskile sëriñ cheikh njuug bu lisraa idee yéegeeti jëf jii du des file sëriñ seexu njug jàmbaari qur'aana ngoo gële ku war suuratul isra'i foo yootu yegg fa sawookaa balay seeree ngi yaa tànn sar wile sëriñ baabakar si saxaarus andi cuuraayi si lañ la xër sëriñ baabakar loola la dalloo ci sar bu tànnee fi saar yay néew itam suuratu duxaan ngëneel yam cëroo lim ko kay tànn sar yile sëriñ baabakar ahsanta say jëf de rëy na si juróom benn fukki junni yi jar na yiw wile sëriñ abdul ahad ngom sëriñ abdulat ngom def nga jëf joj du far du fay ka tegtal la wal asree la wan yiwu rëy wile sëriñ abdu sag jaayante asree la koy téyal ba ëllëg mu doon sag seede yàlla nay junniy pale sëriñ bashiiru loo na buur yàlla sàmmee ruuxi asxaabu kahfiya na leen sàmme noonee yeen ñi ñëw tànn sarwile ca naawel la jàmbaar jey wuyoo Cheikh Basiiru Lo sa jëf jii de dootul far ci taariixu yoon wile na say mbir di jëm kaw faw ànd ak société bii te barkeel ni saaru kax fi jaa jëf sëriñ bile soxna Aysatu Njaay jigéen yàgg naa mën góor ci mbaax soxna ay Aysatu rawal njaay nde dootoo des gannaaw raw nga mas gile juróom benn fukki junni ci saar na saar wile di xéewal ya lay doy sëkk fii doy la yit fële la buur lëm ca biir xaafam nga moom rekk moo ko xam la cay umpe yàlla nay mbég mu méngoo sa jëf jile sëriñ abdul ahad ka ka jël bayyinaak wal asri abdul ahad ka la juróom benn fukki junni moo takk jébbale di tànneef ci jàmbaar yi sëriñ bàmba yi nu xam sa jëf jii na am ak pay gu dàqal la ay pale sëriñ maam dam ñang ku maam dam ñang ak pastéef ba réeroon de xam ko tey ku jël aali imraan ak njigéen kenn du jile sa jëf rëy na sëñ maam daam ñetti nit yi nga def ci ay junni yàlla nay dëkki aljanna yooy dale soxna maam penda aaw jigéen yàgg na sembal ca njàmbaar ga góor ña tey de lii soxna mampenda ko firndeele jëf jile ca ñaareelu kàmmil bii la mampenda aw jële sa sam muy nisaa ek taw ba màggal nga saar yile ci barkeb sëriñ tuubaa sa njàmbaar gu rëy gile na def ngay ku méngoo barke bañ lëm ci saar yile soxna zeynab joxaane juróom benn fukki junni yow soxna zeynabu nga jaayante yow taaral nga liggéey bu rëy bile lu fay barke ak mbootam ya moom suuratu zumar na buur méng ko mbaaxam nga indil la foofu le soxna daba sow jigéen mus la des gannaaw ci mbaax soxna daba sow jëf yi gaaya xàlloon yoonu mbaax wii nga feddali ci ñaareelu kaamil bi nga jël saaru baqara fesal ko 300000 yu mat yaa ko jëbbale ndam ak yokku teg naa tàng yàlla nay sa cër bu law nga feeñ fawu dootoo laqu raw fii te raw fale sëriñ fallu mbakke sëriñ fallu mbakke ak saarul israa wam sasoo ca ñaareelu kaamil bee la jukkee ji saar wile sëriñ fallu say jëf mbakke tuutul te sëriñ bamba mi tax laa di def yal na gis lile sëriñ abdul karim mbakke ka jël taw ba toog pasteef ba mooy cheikh abdul karim sëtub mbakke day saf mbakke lum def mu feddali ca ñaareelu kaamil bee la dikkeek jëfam ju rëy juróom benn fukki junni yaa ngi mu jébbale sëriñ mustafa ña def dëgg ak njàmbaar société bu ñépp xam Siam Kébé daal fes ngeen ci liggéey bu rëy bile ci njiital borom Pastef ba siñ Moustapha kebe fukki yi saar di ay million ñu jël lépp jébbale xadr teg ca azilzaalu wal aadiyaati ñëw ñu def qaari saaru takaasur te yeggale jalaat humazaak fii leeki maawun ba kaafiruun lahab daa daaneel limba njàmbaara ngoo gile li mub ñetti million daal la jàmbaar yi jébbale liggéeyub sëriñ tuubaa la tappale na leen fay ba wis leen barke yaak xéewalam ya sax lu ngeen jublu nay naataange seen lépp xéewale sëriñ baara gay siñ daara moo def ci way wile amoon yéene ñetti nit ngir am ci cër yile kamay jox ma jaayante kanangul ma lii ma wax dañoo yam ci man ndeem woy wi sooful ci gaayile ñaman def ko ak ñii yéene koo def tamel ni man ku waa jakku yëg liggéey baa ngi nooni le na buur yàlla wuutal tab ga ak man ga mottali ci barkeb sëriñ tuuba liggéey bii nu tàmbali fa salla alal muxtaari feeg mbaaxi tab yile di semmal nayug way nayya fii noo ngi sëlmalee wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala wa ashaabihi al wa sallama tasliman kathiran